mbokk yi li ñuy waxtaanee mooy xataru sihr ala almujtama alsénégali wa asbaabu wujudi sihr fi hada almujtama wa ilaajuha ilaaju hadi al mooy danger njabar bi nekk ci suñu société yi di réew mii di Sénégal li nga xam ne moo tax njabar tasaaroo Sénégal ak lan moo koy saafara mbokk yi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 alayhi salaatu salaam dafa wax ci xadiisu muslim mu ne man ataa arrafan fa saalahu an cheyin lam tuqbal lahu salaatan yow yowma ku dem ci gisaanekat mu seetal la nga laaj ko dara fa saalahu an cheyin nga laaj ko dara laaj ko laaj ko rek laaj ko nga def yow fa nga yemagum laaj lam tuqbal lahu salaata arbaina layla ñeen fukki guddi soo jullee yàlla du nangu ma ne man fii senegal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 ñu ne déet mu ni même boo waroon dem kaso am na garab yoo xam ne bu la ko defalee procureur bi wala président séance bi su waroon wax kaso kër ga lay wax. dina garab yi mu lay defal bu ñu waroon wax kaso xam kooku criminel la bandi la kooku fi mu toog procureur dafa war a auto-saisir ñu jëli ko yóbbu. lan moo tax mooy yow mën ngaa sàcc mën ngaa agressé mën ngaa def loola neex après man mën naa defal ay gàllaaj defal la garab yoo xam ni yow doo kaso léegi kuy protéger lan nga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 benn bi moo nit ki bañ a ragal njabar bañ a ragal njabar nit koo xam ni sa bëñ bu méttee sax nga ne dañ maa liggéey sa yaram bu tàngee nga ne dañ maa liggéey loolu dafa lay def benn psycho psychologiquement da ngay neex a mais éviter ko bu ko njabar bu ko ragalee noonu bul def lu la xuri nga dañ maa liggéey mun ñoo xam dañ ciy ëppal ba jéggi dayoo dañ ci ëppal lool day ñëw ne la saas ñaanal ma que man dañ maa liggéey te dara wóoru ko dañ koo liggéey ko yaakaar da ko yaakaar rek kon bañ a ragal njabar gu bëri ba ëppal ci jéggi dayoo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 naan sarax yi ñu waroon a génnee moom lañ génneewul yow génnee ko yow comme sarax la rek génneel sarax yi waaye dañuy fooy xelu nit ñi moo tax jaarootul ñu leen di bàyyi ñu occupé ay plateau télé am ay émission di menacer di wax li may def ni gisaane gi ci laa ilaha illallah laa koy def te laa ilaha illallah moo tere gisaane laa ilaha illallah am te gisaane ñoom ñaar ànduñu laa ilaha li la digal mooy nga wékku ci yàlla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 الصالح نحن نتبع الأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم